waaye ne bu yooyu yëpp passé nag ne partenaire am bii di sama waay waayam te ñu nekk ci campagne te ñu nekk ci campagne nee na bëgg ngeen jàppale nu na ngeen ñu jàppale démb démb rek dañu toog ba mu yàgg dañoo toog ba mu yàgg docteur Babacar Fall. toog ba mu yàgg. ba mu ni sama xel. mu ni sama xel. dafa dem ci Kouthia. dafa dem ci Kouthia. ba mu ñu fekkee gël tàppe. ba ñu fekkee gël tàppe. ànd ak maas. ànd ak maas. fa tabaarakallaahu fa tabaarakallaahu. mu wax ca wax ju reelu. nee na nee daf ko posé question rek. daf ko posé question rek. di mu daal di koy tontu ca saasa. tontu ca tontu ca saasa. Mbaye Fall nee na mënatuma ndogu. nee Mbaye Fall nee na mënatuma ndogu. ndax ree ndax ree. moom nag moom nag man yàlla moom ma ko bëggloo Sidou Bakar ne moom Kouthia daal ko ko bëggloo bi may bëgg Kouthia ne bi muy bëgg na Kouthia booba demul télévision demul télévision de booba layu la daan amee booba layu la daan amee def ci def ci ca marché Kermel. ca marché Kermel. naan naan naan ku dem xaw ma leen. guddoon tàngal <laughs> yàgg naa ko topp moom itam. ne ku caa mii Seydou Bakar ne na ko topp moom itam. ndax Sénégal. ndax senegal li am njëriñ. li am njariñ dafay reelu. dafay reelu. romb leen romb leen. ñu ree ko ñu ree ko. ba duñ ci jëriñ ba duñ ca jëriñu. te luy xew nag. te nag luy xew nag. réel réel. waaye analyser waaye analyser loola nag. parce que wax naa ko Mamadou Ibra Kane. nee wax na ko Mamadou Ibra kan Abdoul Aziz mi ngi toog. Abdoul Aziz mi mi ngi toog. ak beneen équipe. ak beneen équipe. ma wax ko ni ko. ma wax ko ni ko. Kouthia Dey. Kouthia Dey. lu ngeen mën a def. lu ngeen mën a def. ba téye ko ci télé ba téye ko ci télé bi. téye leen ko ci leen ko ci. ndax parti bi mu amee. ndax parti bi mu amee. ku ko am ku am dégg. ku am dégg. mi ngi lay yee. mi ngi lay yee. di la nettali li xew di la nettali li xew. boole koog boole koog. dakkase dakkase. waaye mi ngi wax ak ñi. waaye ne mi ngi wax ak nit ñi de. xaw ma dégg nañ ko wala. xaw ma nag ndax dégg nañ ko wala déet. ah modd yi muy def yëpp. modd yi muy def yëpp. léeg mu puudaru. léeg mu puudaru. takk périg takk périg. léeg-léeg mu def leneen. léeg-léeg mu def leneen. léeg-léeg mu abu bilal. léeg-léeg mu abu bilal. lakk naar lakk naar. lakk arab lakk arab. fa tabaarakallaahu man ku ko bàyyi xel la. ne moom mii. Seydou Bakar ne ku caa ku ko bàyyi xel la. te wóor na ma ni. ne te wóor na ko ni. ni ma ko seetloo. ni ma ko seetloo. li muy def li muy def. fullaa ko lal fullaa ko lal.